daara ahli fadli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, ñi ngi del siaat beneen yoon si muniyatul muridi li tijaani ibnu baaba ci ñi darso al ashruna mooy darso ñaar fukkeelu darso aha ñi ngi doon jàng melokaanu muqaddam bi la war mel yan jukko la war a jukko comportement yi nga xamante ni bu nekkee ci moom kooku yeeyoo nañ ñi taqadimal ko bu nekkul ci moom yeeyoo ñi taqadimal ko bu ko defee nag bu dajale yooyu yëpp nag ñi nga xam ne ñooñ la ko war a jox dana ko jox xale dana ko jox mag dana ko jox góor dana ko jox jigéen dana ko jox gor dina ko jox jaam dina ko jox kuy topp yàlla mooy tarixa bi danañ ko jox itam kuy mooy yàlla ndax xadafam mooy jëlee nit ki ci njubat yóbbu ci njub aha ba tey ñu continuer ci loolu nee na yuxtaa li kulli muslimin tahammala admu zawril awliyaai musajjala sawaa'ul amwaatu wal ahyaa'u wa taxrujul sëbu wal anbiyaa'u laa ba'sa an yazuuru baxdul fuqaraa baxdan wasaaka xasanun izaa jaraa wa kullu man aqasa an seyqi wa saar wa kullu man axasa an seyqi wa zaar siwaahu lam yanfaa bihi wala almadur wa naanu maa lanaa bi dawrihim xarat lima nahaana anhu xayru man farat wa maa dalika lana minhu lcawat saxihu lisnaadi bila sakkin arat faman tala jawharatal kamaali fi addadina wa bihada taali li xadarati nabi sil maali ziyaratan li zeydil irsaali kaanat lahu taadulu zawru rusul wal anbiyaai wa kulli qutbil wali li annahu ka annahu qad saara nabiyana fa yaa lahu faxaara fafaal fidaalaka abi wa ummi maa qultuhu tasfar bi gayri jammi wa laysa saminnan takabburan ala saadatina zawil madaya wal ula kila janabihim ladayna mu'taram lim laa wahum ala al maali wal karam xaqa qadri wa miqdaar al asim sëriñ bi nee na aha eh, yuxta def na sax jullit bi waaw li kulli muslimin ñeel bépp jullit mooy kiy joxe tariqa bi dees na ko jox bépp jullit comme niñ ko waxee dees na ko jox góor wala jigéen dañ ko jox xale dees na ko jox mag def na ko jox jaam def na ko jox gor ak kii topp yàlla ak koy mooy yàlla dégg nga wax bi kulli muslimin bépp jullit boo xam ne taxammala dees na nangoo yenu sarta yi mooy nangu na sarta yi nga xamante ni moom lañ ko gaaral te bokk na ci sarta yi mooy bu ko téye du ko bàyyi abadan yi gën a fadeew mooy ñett buko bu ko téye du ko bàyyi du ko booleeg beneen wirda te du ziyaare beneen wëlliwu boo xam ne du tijaan ñetti sarta yi ñoo ci gën a fadeew yeneen yi ci des nag bari na sabab yi aha zawril awliyaa ak ñàkka ziyaare wëlliwu yàlla mu sajjala mu nekk lu ñu jooyal mu nekk lu ñu Ah, waaw wali yàlla yi nga xam ne nekkuñ ci tarixa bi mu ne sawaa un moo xam am waatu wal axya moo xam dañuy dund wala boog dañoo dee wali yàlla yi ngay moo xam dañuy dund wala dañuy dee yëpp amoo droit dem ziyaare ji leen dégg nga Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dégg nga tere na ko mhm. bu ko defee nag aha mu ne wala baasa ayut la baasa ayut an yazura ba ziyaare baadul fuqara lenn ci taalibe yi baax daan lenn wasaako loolu saa sunu rafet la isa jaraandem daw na maanaam mbokki taalibe yi ñoom leen di ziyaarante dégg nga sëriñ yi di mu ne loolu rafet na buñ ko defee lu baax a baax la te day yokku ak dëgërante seen diggante day yokku wulante day yokku cofeel seen diggante waaw surman hawayta wa in satat bi ka daaru dégg nga wa xaala min dunihi xujbun wa astaarun laa yamnauka al buxdu an ziyaratihi inna al muhibba liman yuhibbu zawaaru loolu la woykat bi wax waaw bul wax ne fa mu dëkk dafa sori du ma manuma faa dem aw ma war a aw ma paas mën a doxal dem rek nga ziyaare ji ko waaw donte le këram sori na mhm. ndax mu ne nit kam bëgg daf koy ziyaare ji heure bu nekk da koy nemmeeku da koy nemmeeku dégg nga wax bi kon ziyaare am na solo waaye yonent bi sallallahu jàngale na si ne ñi wajabat yàlla wax ci hadisul qudsi yu jàngal ñu ko sallallahu alayhi wasallam hadisul qudsi mooy loo xam ne waxu yàlla te du alquran mu ne waj wajabat mahabati lil mutazawirina fiha wal mutajalisina fiha wal mutabazilina fiha ila axiril hadis mu ne sama mbëggeel man yàlla war ci ñi nga xam ne dañuy ziyaare ante ci man di toogante ci man di tuddante yàlla ngir man waaye di joxe di dundale ci yàlla ngir man te yàlla nag bu bëggee jaam bi dafay wax malaaka yi na leen woote leen waa asamaan na leen bëgg naa sama jaam sàngam malaka mi woote waa asamaan yàlla bëgg na jaam sàngam bëgg leen ko bu ko defee nag fa yudaawluhul qubulu fil ardi mu tegal la qubul ci kaw suuf kama xaala fil hadis comme ni mu ñëwee si hadis bi yàlla dafa la xabool dégg nga nit ñi daal di la bëgg kon nag mu ngi noonu kon ziyaarante ngir yàlla ngoog mu ne ñi ziyaarante baax dan lenn ñi ne ziyaare ñenn ñi mu ne wasaako loolu xasanul rafet la saa jaraan dem daw na nee na wa kullu man aqasa képp koo xam ne jàpp na ci sëriñ bi wasaara tam ziyaare ziwaahu ku dul sëriñ bi mooy beneen sëriñ nee na lam yan faa du jëriñu bii ca kamu ziyaare bii ca ziyaare walal masuuru du caagi ne kamu ziyaare bi du ko jëriñ dara kem ziyaare itam loolu du ko jëriñ dara kon nag booy ziyaare da ngay ziyaare koo xam ne tiijaan la comme yow waaye boo demee di ziyaare koo xam ne du tijaan mu ne doo ci jëlee benn njëriñ bal coono nga cey jëlee bal pertement nga cey jëlee kon nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu jàngal nañu dégg nga ci ndigalu yonent bi ne nañ ziyaara ñi nga xam ne ñooy wali wi nga xam ne ci taarix ba lañ nekk nee na war naa anu ñun nag borom nu baaba mooy jàngale maala naa dee di ñu ñeel bi zawrim ci ziyaara leen xardun benn njëriñ maanaam wali nga xam ne duñ tijaan mu ne limaa naxaanaa ngir la tere na ñaanu si moom xayru man farat ki gën ci nga xam ne maanaam nattale na dégg nga te mooy seydil irsaal mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg nga ci làmmiñu Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ne taalibe yi bu ñuy ziyaare waliyu boo xam ne du Tijaan nga wax bi kon noonu la nee na wa ma dalika ànd lanaa ñeel nañu minu tukkee ci ziyaare awdun wattee soyul isnaadin ba aji wér ci wéeruwaay bilaa sakkin ci lu du sikki sàkk arat boobu gaar na léegi buñ ne la bal ziyaare awliyaaw yi yi nga xam ne duñ tëjaan am na yow beneen solution boo xam ne boo ko defee siyaare nga ñëpp dégg nga mooy famantalaa jawharatal kamaali fi addina wa biha wa biha zat toali ah mu ne boo jàngee jawharatul kamal ci lim bi mooy nga jàng jawharatul kamal fukki yoon ak ñaar wala nga jàng ko juróom-ñaari yoon def ko hadiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni ziyaare nga wali yi yëpp dafa mel ni ziyaare nga rusul eh, yonent yëpp ziyaare nga anbiyaaw yi yëpp siyaare nga yëpp siyaare nga wali yëpp kon kay loolu moo a sakkan buñ la teree na la bal ziyaare ji beneen waliyu boo xam ne du tijaan waaye ñi indil la solution na la mën ngaa jàng jawharatul kamal dégg nga fukki yoon ak ñaar wala nga jàng ko juróom-ñaari yoon def ko xaddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee mu tollook na siyaare nga mboolem yonent yi te de ziyaare nga mboolem anbiyaaw yi mooy ñi nga xam ne jox nañ leen eh, xam-xam bi grade bi leen waaye amul de mbooleem xutbu yi ziyaare nga leen amul waaye mbooleem wali yu ziyaare nga leen loolu kay moo gën a sakkan kon nag mu ngi noonu mu ne kaana day nekk lahu ñeel ko taadulu da tolloo moo tax mu ne li xadarati nabi ñeel xadaraa yonent bi sallallahu alayhi wasallam zil maali kay borom a kawe ziyaaratan muy ziyaara li zeydil irsaali ñeel ki nga xam ne mooy sangi ñiñ yónni kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi kon daal Euh, tarixa bi moom dafay tere gannaaw boo ko boo ci nekkee ngay dem de ziyaari ji keneen emal rek ci Mawlana ama Ahmada Tidiane ndax alquran waxoon nañu ne annabiyu awla bil muminina min anfusihim waaw yonent moo gën a yey si yéen ah bu ko defee nag Mawlana Cheikh Ahmada Tidiane suñ sëriñ bi moo gën a yey si ñu ñu dem ziyaara ji ko wala suñu ziyaara ji keneen kon bu ñu si loolu rek yaa ngi dégg da ngay gis ne dañu am tawféex te nag nit ak kam bëgg kam àndat hmm, ànd ga du mat ci moom mbëggeel ga du mat ci moom comme ni ko yonent bi waxee ci hadis ne laa yuminu ahadukum a akunu ahabbu ilayhi min ahlihi wa waladihi wa naasi ajmaina waaw kenn ci yéen du ngëm mukk lu mooy man maa ko gënal njabootam gënal ko ay mbokkam gënal ko mboolem niñ waaye itam doo ànd ak sëriñ bi sa sëriñ bi mat euh, ànd bi nga ànd ak sëriñ bi mat lu mooy sëriñ bi moo la gënal ca lépp jël keneen da ko leeraleeg moom waxuma la nan ngay jël keneen da ko teg ci moom dégg nga benn sëriñ ci masaayix yi dafa amoon taalibe dégg nga taalibe bi di ko tàggu na ko dama bëggoon a dem ziyaare ji sëriñ diw sàngam koo xam ne ñoom ñaar bokkuñ tarixa sëriñ bi ne ko ah, bu fekkee daal mënoo mënoo ko bàyyi maanaam mënoo mën ngaa ñàkk dem ziyaare ji ko moo gën bu fekkee nag da ngaa bëgg a dem ziyaare ji ko bee boo kon nga tënku ci kala neex waaye man tënkootoo ci man waaw boo mënta bàyyi ziyaare ji ko moom bee boo nga xam ne tënkootoo ci man waaw dama nga tënku ci ci kala neex dégg nga wax bi naka jekk sëriñ dañ daan tere ñii seen taalibe de ziyaare ñeneen sëriñ yoo xam ne bokkuñ tariqa waaye nag la base ñi nga xam ne ñoo bokk tariqa ñoomu neen ñi dem ziyaaraante comme nu mu ko waxee léegi mhm. waaye bu ngeen bokk tariqa rek bu ngeen ziyaaraante loolu day dagg bu dee tijaan nga dalay dagg ci tariqa bi da nga wax bi kon noonu lay demee ah nee na wax naa ko annabiyu awlaa bil muminina naan anfusihim mu ne kaana day nekk loo ñel ko temps la tolloo zawaaru rusuli mooy ziyaare yonent yi wala anbiyaawu ak ñuy soloñe wa kullu a ak bépp xutdu waliin ak bépp wali ndax li annahu nag mu xat ka annahu dafa mel ni mu xat saara ziyaare na nabiyan fa maaluhul faxaar dafa mel ni ziyaare na yonent bi lo maaloo déedi ko ñeel faxaaroon ak puubarew waaw ziyaare nga bi te loolu am ak puubare newu ci maanaam defoo ko daal ngir puubarew da wanee ne yow ziyaare nga bi waaye loolu ngëneel la loo xamante ni yàlla moo la ko magi moo la ko jagleel jaaree ko ci tariqatu tijaaniya aha nee na wallay sa saa mu ne fafaal defal lii ma wax la fidaan lakka abi wa ummi fidaan yal na ngay njot lakka ñeel abi sama baay wa ummi ak sama yaay wala boog jotee naa la sama baay ak sama yaay arab yoo xay ba ne fi daan lakk abi wa ummi ne li muy wax ñor na la ñor ko lool maa qultu li mu wax def ko de boo ko defee tasfar da nga géñe fi xayri ci yiw jëmmi ba ji bëri mooy da nga yiw bu baree bari bi xayri jëmmi yi walay sa saa dee lii mu wax nag min nan da ñaaxee takkaburan ak rëy ala saadaatina suñu kilifa yi suñu sëriñ yi suñu sang yi zawil mazaya yey boromi yokkute wala la ak kawe maanaam lu nu wax ne boo nekkee ci tarixa bi amoo droit dem ziyaare ji beneen wëliyu boo xam ne du tiijaan mu ne waxuñ ko ngir rëy de waxuñ ko itam ngir ñaaxee kenn da wanee ne maanaam dañoo xeeb ñeneen ñi déedéet duggewuñ ko loolu waxewuñ ko pour affaire xeebel wala pour affaire waaye xaayida yi ñoo tëddee noonu waaw xaayida yi tariqa bi moom moy doxee noonu te qaayida yi ni muy doxee rek dégg nga dañ war a dox ànd ak moom waaw bi zirri zamanika sir Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane la waxoon mooy nit ki na nga dox sa doxu jamono waaye nit ki itam dafa war a tënku ci li nga xamante ni mooy ay ay xaayidaam nga xam ne moom la dégg nga euh, la mu lekk la mu nekk na xaayida yi di dundee noonu la war di dundee moom itam bum ci wàññi dara nee na ki laa jannaa bihim ku mu seyna seyni nag la day naa fa ñun moxtaramu xormaal nañ ko mooy xormaal nañ sëriñ yëpp ñi nga xam ne nekk ci bi ñuy dund ak ñi dee xormaal nañ leen de waaw tiyaan ibnu baaba nga ne ko ah xormaal nga leen mu ne waaw waaw lim laa lu tax duñ leen xormaal lim laa hmm lu tax du leen xormaal te wuum ñoom ahlul maali ñooy borom ak kawe wal karami ñooy borom ak tabe ah ñoom kay dañ leen war a xormaal parce que ñoom ñooy borom yëgateku ñooy borom kawe ñooy borom tab ñooñu ko leen xormaalul kan ngay xormaal dégg comme ay kilifa lañ moo tax xormaal lañ xormaal nañ leen te sëriñ moom eh, boo nekkul ci tariqa bi itam. da nga kaa war a xormaal la sax buy sëriñ waaye bu dee doomu aadama bu nekk rek nga jox ko xormaalam xorma bi nga xamante ni moo war ci moom rafetal jëm si moom waaye ziyaare daal moom la ñuy tere eh, te mooy ziyaaratul istimdaadiya ziyaaratul istimdaadiya nag mooy nga dem ci nit ki jàpp na yow li nga am ci moom lay jógee ko loolu mooy istimdaad masalaan nga taxaw si naaj bi naaj bi tàng nga ne xaaral ma taxaw si kër gi pour mu fegal ma naaj wi daal mooy istimdaad waaw bépp sëriñ boo xamante ni du tijaan dem nga ci moom yëg nga ci moom loolu ne am na loo bëgg a jëriñu ci moom comme ku taxaw si naaj bi naaj bi tàng mu ne xaaral ma làqatu ci keer gi pour mu fegal ma naaj bi yow noonu nga def ci sëriñ boo xam ne du tiijaan làqatu ci moom pour am ci moom loo jëriñu bu boobaa na la wér na dagg nga ci tarixa bi kon loolu la tarixa bi di tere mooy siyaaratul istimdaad dégg nga wax bi xam naa kon dañuy taxaw foofu beneen yoon allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay digil kese la dem si di